yàlla jël si Musaa alayhi salaam ñu ngi wax alhamdulilah rabbil alamin si bés bu tedd bi si gan bu màgg bi nga xam ne moo ñuy gën si ñu bésu altine di bésu yonent bi sallallahu alayhi salaam ñu tuddee ko suñu soppee suñu génn wàll suñu lépp suñu kanam suñu ginnaaw suñu lekk suñu naan comme ni ñu ko waxee si bi ndax moom bàyyi nee na bi mooy li muy lekk mooy li naan mooy fi muy tëdd mooy tukkee nii mooy dalal yi moo yëngatu nii ñu nit loolu rek lañ ko delloo bàyyi mooy suñu lépp ñu tànk ak suñu soxna tuddee ko muy Mamy La Linguère gën a siiw si Mamy La Linguère bu TFM mu tuddee ko Mawlaaya Cheikh al Islam euh, kan moo ko tudd Cheikh Baye Haadi Cheikh Baye kuy waajuram Mouhamadul Haadi Mawlaaya Cheikh al Islam nga xam ne moom yonent bi lañ ko tuddee Cheikh Baye ñëw tey uuf ko tudd ko tuddee ko Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima kon tey loolu ñu ngi si am mbégte boo xam ne xamuñ fu mu commencé xamuñ fu mu yem si géej ñu boo xam ne lam nañ si xamuñ sax lu ñuy wax. waaye ñu ngi gërëm mboolem ku teewee tudd gi ñu waxee Cheikh Baye Dugaane na Amidine Niass bi nga xam ne moom waajuram moo laay Cheikh Lam mooy waajuram ak suñu mag suñu kilifa suñu léttal suñu àndandoor Ababacar Kan mi nga xam ne mooy xalifa kaneen gee sa Kaolack nga xam ne ñoom kóllëre gu yàgg lañ diggante kër Baye ak kër maam El Hadj Abdoulaye ndax maam Abdoulaye Niass bi ñu jógee fees jaar tukkeem bu mag boobu jaar euh, Tiwaawan ba xew-xew foofu yëpp keroog bi mu dikkee na ñeseen waa góor gi amit kan moo ko dalal mu rakkanam yooyu kon ñu sant yàlla si moom it teew na ak mboolem mu xaddam yi nga xam ne ñu ngi si pays bi ku lim daw du matal waaye rawatina ki nga xam ne mu ñu jiite suñu daayira bu mag boobu muy ansaaru diin bi ba xam sekk mu wax si turu taalibe yëpp nañ koy gërëm di ko sant di gërëm mboolem mu xaddam boo xam ne rek bàyyi nga si yitte ndax temps amut Abdou Aziz Ndiaye Mouhamadou Bassir Ndaw Cheikh Ali Diagne ak mboolem mu xaddam yëpp gërëm nañ ñëpp ak Cheikh Baye al Mousid ak mu muqaddam boo xam ne teew nga rek gërëm nañu sant nañ la ñu ngi santal yàlla beneen yoon si gan bu tedd gi nga xam ne mooy gën a tey ñaan yàlla na yàlla may ko juróom-ñaari jukki turandooram te benn rek doy na te bu ko mayee benn rek doy na ndax bàyyi moo ne muy jëmmi xam-xam te moo doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñu ngi daw jëm màkka duñ xeñ xeñ ko jëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te moom mooy jëmmi yonent bi mooy mi nga xam ne ñoo nekk si weeram nga xam ne weeru safa si la gën a jamono fukki fan yaa ñett ya am na fukk ak ñeent ya maqaam mabudu maqaam katmiya mu am ko si guddi fukk ak juróom-ñett si weeram lañ nekk moo tax bésu altine di bésu yonent bi sallallahu alayhi ay teraanga la yoo xam ne teraanga si kaw teraanga te bàyyi waxaat na ne moom moo doon Seydi Ahmada Tijaani wa man yuhibbuni wa man yaraani fi jannatil xuldi bilaa buhtaani is anani xalifa Tijaani moom wax na mooy dëgg-dëgg xale Cheikh Tidiane te loolu amul sikk ñun xam nañ ko kon ñu ngi yàlla bu baax di gërëm soxna su tedd si nga xam ne moom lañ yàlla booleel muy mami wax naa ko bés ne si seen benn góor bu famille bu ko dalal ma leen tànk yi Xadija taxawoon yoon ci moom la ñu tànk yi Faatimata bintu yaa Rasuul taxawoon Seydina Ali moom la ñu taxawee tànk yi nga xam ne euh, jamono bii ñu nekk muy senegal sëriñam ba soppeem ba Cheikh Ahmad Bamba waajuram bu jigéen bu tedd ba soxna Jaara ko yaay bu sa tànk yi ñu taxawoon maam maam Anta Sall loolu ñu taxawee suñu sëriñ suñu soppee Mawlaay Seex Islaam yaay mi nga xam ne mooy asu jànqa tànk yi ñu taxawoo Alaaji Abdoulaye Niass loolu la ñu taxawee Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu maam Fawa yi ñu taxawoon maam Ousmane loolu la ñu taxawee si alalam si tempsam si jëmmam si léppam bàyyi daal moo ne waxoon waa Mauritanie neneen su ma ñëwee Mauritanie ngeen jox ma seen alal su ngeen ñëwee Sénégal jox ma seen alal waaye buntam ñaan yàlla kenn du ma si jiitu kon moom it dañ ko saxalal ñaan yàlla su lu feeñ te su lu nëbbu te amuñ sikk ne yàlla dina nangu si ñaan kon macha allah ñu ngi ko ñaan yàlla yàlla lafal ko cat suñu diggante barkeel njabootam bi ñu am moom ak njabootam bu mën a doon si màdd ak si maana yow yàlla yàlla may ko gudd fan defal ko càkkuteefam barkeel yëngatum ak dalam yëpp ndax yëngatum ak dalam yëpp mooy dimbale ñi nga xam ne amul mënuñ wéer nekk fee si prison ba bu salaram jotee daanaka bu si joxee départ des ñoom la ko yóbbu wax na ma ne ma dañuy dem tàntaat euh, campement ma ne ko lu tax mu ne xale bi dañuy dem géntuwaat fa pour ñooñu comme ñoom mënuñoo teew bés bi te ñoom ñooy njabootu boppam te man xam naa si dara mu dañu dem tàntaat foofu ngéntewaat ko te loolu kon teraanga si kaw teraanga la ñu ngi kontaan bu baax yàlla na yàlla di sa ndimbal yàlla yonent bi di sa ndimbal yàlla Cheikh Tidiane di sa ndimbal yàlla Mawlaay Cheikh Ibrahima di sa ndimbal yàlla na sa sëriñ di sa ndimbal dañu wax kàddu yi comme ñu gàttal ko noonu ñu ngi jéglu guddal bi waaxiru daxaana alhamdulilah rabbil alamin kon damay ñëw rek tàmbali niñ ma xamee may Bamba sama yaakaar tey ëllëg waaye nag dama ciy sof sant Maulana Cheikh Ibrahima Niass mi ma yàlla may tey mm-hmm. laaj nga ma lu ma neex ndax ku nekk xam na ne boo amee lu yokk ci yow rek am nga mbégte te am naa lu yokk ci man mu yokk ci man ba tey na lu yokk ci man kon maa ngi koy sante yàlla rawatina ci ci weer wi mu tollool ak jamono ji mu tollool mm-hmm. ah di sant nag ñi ma ko bokkal ñëpp ndax boo amee mbégte wala nga am naqar lenn rek bëgg a def mooy gis say mbokk gis say xarit gis say àndandoo daf dëgg yàlla tay gis naa ñooñu ñëpp gis naa ñi ma bokkal liggéey muy sama deuxième famille ndax bu ma xëyee ci ñoom laay nekk muy waa GFM man du ma ne TFM mais dama naan GFM naa leen kon maa ngi sant kenn ko ci nekk ci ñoom gis naa samay xarit itam muy samay xamee li ma yàlla booleel ñii di ay fans ñii di ay mbokk ñii di ay xarit gis naa leen ñoom ñëpp waaye damay tàmbalee sant gi ci askanu yaaba xarit maam bi ma dayoo maram baax bi ñu yàlla booleel ba ñu mën ko am ndax dañuy wax ñu ne jëmbat bu ci gën yépp mooy booy jëmbat bul jëmbat cib ndax di nga am gàncax waaye doo am boo boobee doo am dara kon alhamdulilahi rabbil alamin bi ñu yàlla boole nit ku baax góor gu ñu sagal góor gu ñu muñal góor gu ñu yërëm ndax comme ni ko olof yi di waxee rek doolee jën moom ndox la doolee saxaar itam raay la daf ma ñaanal sànq wax ne dama ko taxawu mais xëy na moom dafa maa njëkk a wax rek waaye xëy na fi ma ko taxaw moom taxaw taxawuma fi ma taxaw moom man taxawuma ko sax foofu ku nekk xam na ne ci wax laay liggéey waaye tey su ma baati manqué wee xëy na ni situation bi demee la ndax taxawu na ma foo xamante ni nii waajur moo fay taxaw ndax man dama naan benn métit rek xëy na sama àdduna mooy juddu taxaw ma sama papa mais moom bi ma ko xamee ba ni maa ngi sant yàlla bu baax ndax taxawu na ma taxawaayu bàyyi. taxaw na ma itam taxawaayu mag ju góor damay dem ba fàtte sax ne sama borom kër laa nekkal ci kër gi euh, léeg-léeg dañuy dem ba ay doomu bàjjen ak doomu nijaay lañ ci wéttalante ci tooñante ci kaf ak ak jàmm salaam kon ñi ngi ñaan waa pays yëpp comme ni ngeen koy waxee ñu ñaanal ñu yàlla jàmm jooju gën a sax suñu diggante euh, nijaay gi jiitu woon te loolu la ñuy doxal itam ba tey waaye di sant ci tout tànk bi ñu yàlla boole muy Maulana Cheikh Ibrahima ñu ngi ciy sant bu baax tey ñaan yéen ñépp ngeen ñaanal ko gudd fan ak wér ak it mu dund ba man nag dama naan jël jikkoy turandoom waaye mu dund ba li nekk ci baayam nekk ci moom yéen ñi xam fi may yéen ñi dégg fi may waxee xam ngeen fi may waxee kon ñaanalal leen ma ko ndax man bu loolu nekk ci moom rek lépp doy na ma ndax naw naa jikkoy baayam te doom boo nawee jikkoy baayam kon nga mu mel ne moom santaat naa ñëpp gërëmaat naa ñëpp sama xol sedd na lool xam xàmmee ngeen man ak ci ay wax mais tey baat yi ñoo ma manqué. Mm-hmm. xëy na bés dana ñëw ci kanam di ngeen gis ma def beneen interview. Mm-hmm. woowaat leen ñoom ñu ñëw ma toog waxtaan ak ñoom xay na ci bopp bu dal. Mm-hmm. su boobaa di ngeen xam ne mami ma ngeen xamoon a fi nekk waaye tey mbégte mee ma jàpp xëy na di santaat ñëpp di santaat njabootu Maulana Cheikh Ibrahima Niass ndax nañ ma bu baax tey jii gis naa seen teewaay ñoom ñëpp jërëjëf jërëjëf. macha allah yàgg fi lool te wér Cheikh bi loo fi yàgg doy. ndax loo fi yàgg rek sama njëriñ. ndeysaan اللهم اكرمنا وسعد كل ما يريد الله من الناس وإياك وإياك وإياك وإياك وإياك وإياك